jërë ngeen jëf jàmbaar wàcc na murit saadix dem na Serigne Cheikh Jëmb fal làqu na soleil national xëy xibaar bu tiis yi ci xët bu njëkk ba wax ñu ne Touba ñàkk nab soldaaram Serigne Cheikh Jëmb Fall mi ne woon xalifa général des Baye Fall démb ci la wàccub liggéey yaaram bu musuta xëtt ndigal boroom baax bu kenn dul laam-laamee ak ngëmam ak bëggam Serigne Touba l'observateur këf kàddu gi wax ñu ne moom Serigne Cheikh Jëmb Fall moo ne woon juróom-benneelu xalifa général des Baye Fall démb ci la làqu ci téeméeri atam yu manki ñeent fukkeet ak la def ci xilaafa gi doon xalifa Baye Fall yépp vox populi nañu biig ci ñu ko denc ci armée yi bàq ya ci këram fa la faatu ginnaaw wopp ju yàgg ju ko tëraloon sëriñ Amdi Moodu Mbenda Fall moo ko wutu ci jal sang bi dem ak sang bi ko wuutu ñoom ñaari sang yëpp seeni nataal ñoo ngi ci xët mu njëkk journal bii di Vox Populi xët mu njëkk journal bii di Rewmi Quotidien la ca nekk mooy proposition di ay xalaat ak i pexe yu ñu nase démb ca ndajem conseil national de la consommation ga ngir dakkal njëgu dund gi yokk jol jol yi jëm kaw conseil national consommation di ay mesures yu jëm ci fexe ba wàññi njëgu dund gi maître ma soxna kan bu SOS consommateur ni ñu ci journal las li woon démb manees na koo tudde nu ne ba mu des ndajem waxtaan ak sottantey xalaat nee na li ñuy doon def démb li mu gën a moo di ndajem kaay leen toog di ma déglu may wax las yi ne kay dolli ñu ci ne ña fa teewaloon consommateur yi fantasiro la fa nekkee woon ak ministre bi ñu dénk wàllu commerce ministre ma dalul seenom xel dogal bi état bi Sénégal jël jëme ko ci wàññu njëgu dund gi ak teggi taxe yi ci suukar importé bi journal Le Quotidien ay sóob la ko jàppe nee na amul benn taxe ci ceeb bi ak ci blé bi taxe yi woon ci diw gi jóge na 10 pour cent dem ci 5 pour cent nguur gi ak dogalam bi dina ko xañ weer wu nekk lu jege benn milliard ak genn wàll te matuwaay yooyu yëpp ñuy wax ak di ko jël amul benn garanti buy garanti ne consommateur bi dina ci gis boppam Maodo Malick Mbaye ci boppam moo xëy amee xët mu njëkk njiital ANAMO membre APR bokkit ci départementale yi mi ngi wax ci journal bi ne bu ñu moytuwul dund gu tar gi ñenn ci askan yi di dund moo ñu nar a andil ñun majorité bi ay ñool ñool ci élection locale yi déwén yi Maodo Malick Mbaye ne ñun ñi ci majorité bi bu ñu jàppantee ci suñu biir wàcc ci askan wi jege leen xam seeni tawat jëm ci saafara kon kenn duñu àttan ci élection ñun waa Benno Bokk Yaakaar kaddu Ousmane Sonko ba tey ci Vox Populi nee na fa Macky dina gis ci local yi opposition bu mag boo xam ne mësee su ko gis ci réew mi réew mi di Sénégal Ousmane Sonko njiital parti Pastef mi ngi wax ci xët mu njëkk journal la waa sûreté urbaine teg nañu loxo ndaw sii Alexia Kanté journal Libération mu bind xibaar bi mi ngi ñuy wax ne Alexia Kanté benn femme la bu fekk baax Côte d'Ivoire ay pikiiram la yore di ko pikiir jigéen ñiy wut wang ñi bëgg a yokk seen ginnaaw maanaam seeni fes ku mu ko ci pikiir ci semaine rek nga am wang gu neex la mu doon def nag moo tegewul ci yoon moo tax ñooñu commissaire Bara Sangaré yi dem jàppi ko moom ak jëkkëram ñoo nga ñu garde à ñoo xam ne la ñu leen fekk ñu doon yokki xot police a l'observateur meneen mbir mu yéeme ma nga fa ca Louga la amee ubbil bi benn silmaxa moo dox ba fekk góor ci kaw jabaram ñaareel bala moom la bett ak góor bi mu leen bettee waa ji ca palanteer ba la jaar daw silmaxa bi téye téléphone waa ji porté palante jabar ji ngir mu remboursé ko 700000 yi mu ko joxoon may gu njëkk jërëjëf Mamadou ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar